mbokk yeeg xarit yi ñoo ngi leen di nuyu di ziar ñëpp nag di ziar képp ku nga xamante ne bi yaa ngi seetaan RTS 2 waaye tamit wa àddina yëpp parce que nag wax dëgg yàlla ñoo ngi ñuy suivre bu baax aussi ces réseaux sociaux yi waaye tamit ci télévision yi mbokk yi ñoo ngi nuyu ñëpp encore une fois surtout nag ñi nga xamante ne bi ñoo ngi ci hôpitaux yi di leen ñaanal wér ak wérle ba dellu seen i kër waaye tamit ñi nekk ci prison Sénégal yi RTS 2 mi ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ñaanal jàmm ak salaam saa su ne dama koy wax jàmm ci la lépp xaj kon nag ñi ngi ñaanal waa Sénégal jàmm

plage magique nga xamantene bi sa suné ne won suñu xarit hijabeuse nak lañuy la nouer vraiment seen ay foulard mu nek nak fashion xamna né tay tey ba ñuy indi ah incha bu ci kanamee dinañ ah ok wow et surtout nak mbokk yi a gis bi nga xamantene bi momi tamit mom la def tay euh, bu ñu joggé ci lolu mbokk yi dañuy nak jéxal euh, sa suné ak suñu tonton Lamine Ndiaye nga xamné à chaque fois c'est un plaisir de le recevoir ci studio bi mu ñuy indil nak ay nit yu nga xamantene bi ñi ngi fi ci euh, Sorano ensemble lyrique euh, traditionnel waaye nak euh, vraiment di que la jeune génération di def aussi ligue bu rafet ci walu art te nak ñu ci recevoir euh, Fatoumata Diarra mbokk yi dañu jéxal émission bi sa suné ak vue sur la toile waaye nak maa koy wax sank tay dañu am aussi invité comme tous les jours ñu duppee ko monsieur Babassène di chargé de comme bu centre d'éducation et de formation environnementale mbokk madame Régie dellu siwaat

merci beaucoup Yaham, c'est toujours un plaisir de <laughs> partager le plateau avec yow di nuyu aussi en premier tonton qui nous ma invité bi parce que gan dañ koy dalal euh, monsieur Baba Sen, di nuyu Mage di mujjé sama partenaire sama tonton tonton Lamine Ndiaye di nuyu aussi téléspectateurs yi ñuy année. yëpp toujours sur rubrique euh, éducation et civisme nous indi éducation environnementale mhm. parce que bu ñuy wax éducation bu ñuy wax yar bu wax comportement mhm. environnement bi defe naa ni daf ci am solo torop torop torop te tollu noonu foo xamante ni moom la mhm. a laisser en rade moom moo ñu dugg comme thème avec l'appui de du CEP CEP euh,

ñëw di ñu seetaan ñu leen di indil ay thème yoo xam ne bu doon suñ sago lu ñuy lu ñuy jukki rek ñoom nañ ko waxtaanee ci biir kër yi waxtaanee ko ci biir salon yi ndaxte day am solo mu ñoo wax lépp ba mhm. jeexal ko dëgg la dëgg la waaye ñoo ngi leen waaye ñoo ngi góorgóorlu bu baax a baax euh, di fàttali téléspectateurs yi nekk tam-tam dafay am euh, tous les jours à partir de 19h sur la RTS 2 waaye nag le samedi la ñuy def le grand tam-tam et c'est à partir de 11h toujours sur la RTS 2 canal 5 bu TNT mbokk yi nag ñuy nuyu nag suñu xarit mage c'est toujours un plaisir de te recevoir ça euh, a sonné ngay aider mm-hmm. suñu xaritu ijabeuse euh, pour dal ñu mën nouer encore euh, très bien li nga xamante bi mooy fulaar yi ñuy takk lay nuyu di la dalal jàmm maa ngi lay fay xam mm-hmm. plaisir partager maa ngi nuyu ñi ci plateau bi yëpp sama tonton tonton Lamine mm-hmm. taa Awa Baba ci bi si kanamee incha allah dinañ leen idée euh, voile yi fashion comme d'habitude très très bien ñi ngi lay gërëm di la sant waaye nak di gërëm sa su ne ñi nga xamante bi ñoy suñu ay invité parce que nak dañuy bayyi sen ay yitte euh, ñëw fi di partager ak ñun ay xam-xam ñu ci nak dalal jàmm mbokk yi monsieur Baba sen ma ngi koy wax sank di chargé euh, de com bu centre d'éducation et de formation environnementale monsieur sen ñi ngi lay nuyu di la dalal jàmm bu baax baax c'est un plaisir en tout cas ñu recevoir la fi ci émission Tam Tam jërëjëf ya xam c'est un plaisir partager mm-hmm. Euh, ñu ngi leen di euh, invité invitation bi ngeen ñu invité mhm. di téléspectateurs yëpp di ñu seetaan euh, ndaxte li ñuy def mhm. dafa am borom xam-xam mhm. il ne suffit pas qu'un produit existe il faut qu'il soit connu te li ñuy def nii dana tax ñu xam lan éducation environnementale lan la kana tax mu jóg. dëgg la mu am solo lool parce que la dernière fois ci environnement justement euh, suñu xarit Marème Meng ñëwoon na ci problème yi nga xamante ne bi population ñi ngi koy jànkonteel fële ca Soumbédioune mhm. euh, nga gis vraiment euh, daal égout ya fa nekk et puis voilà mbalit yañ fay sànni ci wetu géej gi am tamit ay gàllankoor yu mu indi ci wàll ñi nga xamante ne bi ñoo nekk ci géej gi jën yi huîtres yi et cetera ñëwoon nañ ci largement la dernière fois mhm. mbokk yi ñu ñëw ak yéen nag ci li nga xamante ne bi moom mooy éducation et civisme sànq ba tey ñoo ngi koy wax mu nekk lu am importance tey

fi nga xamante ne moom la ñu fi la ñu janool ni xeetu garab yi ñu fay am yëpp mat nañu euh, fukk ak ñett yenn yi ay garab yuy yuy faj la ñu leen di woowee plante médicinale yenn yi ay garab la yoo xamante ne moom la ñuy defaree table classe yi ak euh, buntu buntu l'école yi ak porte ak palanteer yeex yooyu muy les euh, les plantes de bois d'œuvre am na beneen secteur boo xamante ne plante légumière yi ñoo fa nekk ak condimentaire yi maanaam lépp luy lujum lépp loo xamante dañ ciy duggi marché te bu yàgg boo xoola mboo boo daan xool leket lañ daan duggee marché ndax euh, li ko waral mm, dañ naan leket lawtan la. am na beneen pàcc boo xamante ni bi ci tool bi la nekk euh, mu ngi aju ci wàllu euh, gàncax goo xamante ni plante fourragère lañ koy lañ koy tuddee plante fourragère nag mooy gàncax goo xamante dañ koy jëfandikoo ngir jur gi di ci lekk di ci di ci lekk di ci di ko dundee waaye gis nga ne jur gi ngir ñu am yooyu xeetu garab. Euh, il faut muy taw pour mu taw nag nit ñi xam nañ ne kenn warul gor garab yi pour mu taw nit ñi war nañu xam nañ dañuy jëmbat garab jëmbatum garab googu nag nekk na loo xamante ne sax ñun suñ ñun suñu wàllu bopp ñun nit liñ ciy def sax bariwul ndax lu ci bari lëppaa lëpp yi ñoo koy def lu ci bari weñ yi ñoo koy def lu ci bari yooyu ñoo koy def lu ko lu ci bari picc yi ñoo koy def kon mu mel ni wàllu woowu nit lim ciy def bariwul lool xale yi war nañoo gën a bàyyi seen xel seen dëkkuwaay. ki gasteen ak ki jëmbat garab kenn mënu leen fay ndax ki nga xamante ne jëmbat na garab euh, garab ga mu jëmbat kat nit ñi nañ fa toog naan ataaya waaw ba nga xamante ne ki jëmbat garab ci buntu këram mën na toog ci buntu këram naan ataaya lool deuxième troisième. ki nga xamante ne dafa def éducation environnementale moom mooy yëlif xam-xamam ëllëg ak tey ba nga xamante ne dina xam lim ciy jëf muy njëriñam di njëriñu réewam ak njëriñu àddina uteex ka nga xamante ne xamu ko. que parce que quand nga xamante ne xamu pas. pour moi, nous connaissons les lay utiliser lay jëfandikoo ordinateur nous connaissons neex alors que yooyu ay environnement artificiel environnement artificiel yooyu nag mooy solo bi nga xamante moo nekk ci njàngum éducation environnementale ñu ko déggee nag muy euh, vraiment ñàngat yu am solo ñu ciy nuyu nag euh, le commandant Ndiaye euh, bu park bu an parce que nag reportage bi fa lañ ko defee waaye nag madame Awa Ndoye Diop yaakaar naa ne lu ñuy njëkkee mooy ñu faram fàcce li nga xamante bi moom mooy éducation environnementale mu nekk lu am solo ci dundu doomu aadama parce que la muy laal moo bëri li muy laal moom moo bëri ndax defe naa ni bu amuloon ay garab ak yenn eh, kii nu mu tudd espèces yi. Mhm. nit du mën a dund ci environnement am. Mhm. parce que pour que nga am air pur. Mhm. lu bëri day agir. pour que nga mën a am santé lu bëri day agir. je pense que du ma sax xuus bu baax. parce que expert baa ngi fii toog moom dina mën a développer bu baax lan mooy éducation environnementale parce que si biir CFE. CFE am na ñoom yu ñu ciy développer pour gën a mën a sensibiliser pour nit ñi mën a xam lan mooy seen wareef euh, ci seen environnement. monsieur Sène waaw wax na dëgg. Mhm. xam nga sànq wax nañ ko éducation mooy mooy xamle rek. Mhm. jàngale. Mhm. te euh, comme dañuy wax développement durable. développement durable finalité la. mais pour nga yegg ci dafa am ay process dafa am processus la. te processus boo gis dafa am ay étapes. ñuy faral di wax ne ñun ñun mag ñi peut-être dañuy dee ak suñu habitude. naan café sani, xolli banana sani. wante ñu nous ba xalé yi nga xamné ñom ñi ngi ci école parce que mhm. ñun suñu euh, cible primaire moy mhm. public scolaire d'accord élèves yi mhm. parce que investissement à long terme ci pour que nous ñu magan mag ak comportement yu habitude yu parce que problème yi ñu am yépp suñu environnement et problème comportement problème jikko rek salteel ñun ñooy salteel mhm. boo naanee café sànni gobelet ba boo xoolee banaana nga sànni mhm. taal pëna fii voilà yooyu yëpp comportement rek la donc il faut ñu agir ci comportement yooyu mhm. fexe ba xale yi màgg ak ay éco comme ni ñun ni ñu koy tuddee ay éco-gestes d'accord bi loolu naka lay demee waaw ni ni muy demee mooy euh, ci programme boobu éducation nationale mooy suñ partenaire bu njëkk principal parce que ci école intervenir ah ok ci école yi programme programme bois d'école d'accord concept là, bu hmm. autour du concept hmm. beaucoup d'activités d'éducation environnementale se sont déroulées d'accord bois d'école certes renforcer capacité de hmm. peut-être ñu ngi doon seetaan léegi élément bi. waaw waa ji wax na ko brosser na ko tuuti. Mhm. Euh, am ay principe de base yu nga xam ne war na koo xam parce que moom mooy desa xale yi ci classe bi. dëgg la ba d'école bi dañ ko fay def également pour wan xale yi euh, pour jox ko jàngalekat yi. Mhm. Euh, support didactique et pédagogique bu nga xam ne bu ñu génnee ci classe bi. Mhm. def théorie mu nañoo dem sur le terrain ci ci école bi ñu xool nu ñuy saxalee garab. nu ñu toppatoo garab. garab rek ci mm. dañ koy ji comme ñoom leen di également mag parce que euh, comme li ma wax ni am suñu habitude ba mais dañuy fexe ba mag ñu ñu ñu critique xaw wolof. Mm-hmm. qu'il soit un peu critique par rapport à leur comportement. comportement vis-à-vis de l'environnement. Mm-hmm. que même boo ko bàyyiwul tam boo demee am na acte yoo xam ne boo ko defee rek sa xel dana dellu si ah lii de waruma ko ne saw ci miir bi fii sànni banaana fii naan góoble sànni loolu également dañuy liggéey ba nga xam ne mag ñi adultes yi tey léeg-léeg ñu ñu xool réfléchir ne est lii war naa ko def lii waruma ko def lii jom naa ko def li jomm ma ko def hmm. parce que comme li may wax hmm. ñaari côté yëpp la hmm. mag ñi fii dañuy jéem a récupérer dabu liñ ci mën a dabu mais xale yi ñoom dañoo bëgg ñoom ñu ñu jimmi magando ak ay éco éco gestes. très très parce que l'habitude est une seconde nature. très bien alors madame Awondo Diop c'est vrai que nag euh, je pense que euh, c'était normal et il était temps ñu am centre bu nga xamantene bi mi ngi gunge nit ñi. parce que egg nañ benn stade bu nga xamantene bi vraiment du Sénégal rek def na né adina bi yépp ñi ngi souffrir euh, ci problème environnement ba nga gis dégradation climat yi ak mm-hmm. naka lay changer mu nek mm-hmm. un problème bu nga xamante bi comme ni ko waxee bu ñu ko jëlé ci souf ak mm-hmm. xalé yi yaakaar naa ne bu ñu màggee ak ñom dinañ ci mëna am yaakaar dëgg la am na solo trop centre bi ñu teg parce que ñun ñëpp lay aider. beneen fànn bi ma bëgg wax mooy ban programme la ñu prévoir déjà pour ñi nga xamante ne demuñu école parce que fi ñu nekk nii li ñu wax yëpp mooy benn population bi mooy ñiy jàng. Mm-hmm. te li ci ëpp ñiy sànni ci mbedd bi amuñu yenn études yu poussé yi. Mm-hmm. wala boog buñ ko amee de seen civisme des na. Mm-hmm. Euh, li ñuy wax pono yi en général mooy ñi nga xamante ne amuñu benn niveau d'études bu élevé. loolu ban programme lañ ci kii toujours toujours dañuy wax naan euh, du man rek bokkuma ci moom moo moom moo gën mhm. est-ce que dañu war a topp ñëpp parce que ñëpp a ngi koy def mhm. wala ñun dañu war a am suñu benn comportement et comportement boobu amoon na fi mhm. donc lan moo tax comportement bi war a disparaître léegi lan moo nekk à l'origine de tout ça peut-être dinañ ma wax euh, parents et enfants parce que waajur yi xëy na yaratuñu seen doom yi jëlatuñu temps di waxtaan ak xale et cetera mais j'aimerais bien aussi nga mën ñu dimbali ci fànn boobu lan la ñu prévoir pour ñi nga xamante ni jàngu jànguñu demuñu école pour mm-hmm. ñoom tamit ñu mën leen a toucher mën leen sensibiliser. waaw xam nga xam nga Sénégal le problème bi ñu am. Mm-hmm. <coughs> léeg-léeg dañuy joxe ay pourcentage chiffre mm-hmm. ñu jàngut. mais là il faut faire attention. ñu jàngut lan. Parce que nous sommes alphabétisé en France, rek sommes am Les gens sont alphabétisés en, arabe. Mhm. parce que là, dans le bëgg laaj école mais l'école, yi l'école école coranique C'est tout, tout les, tous établissements. pratiquement. Aujourd'hui dans nos programmes il y a des EFA, les écoles franco-arabes. Mhm. Il y a des DARA. qui Ils sont impliqués mhm. dans ce programme là. Donc euh, comme li mu wax ni euh, xale yi. Mhm. mooy suñ cible primaire maintenant am na mhm. cible secondaire cible secondaire yi mooy ñooñu nga doon wax nii. Mhm. Euh, parce que dafa am euh, ay ay ay baat ay concept yu nga xam ne yu bees la neexul la tekki ci suñu làkk. ñu tekk ko ci ci léegi lañ ci doon wax doyen Lamine di di di wax pays bi. muy environnement. am na ñu koy waxee alam aussi. alam waaw alam waaw am na ñuy wax alam li ñu wër man di ma koy tegee mooy li ñu wër. li ñu bokk. Nous mhm. avons wër ñepp bokk ko mhm. amul frontière mhm. parce que acte bu ndaw bi ngay def fi Sénégal mën na am répercussion fële États-Unis parce que kii ji rek mo ñu séparé euh, comportement éducation euh, communication sociale boobu lool la ñuy développé dañuy appuyer ci association yi parce que ñun suñu mission principale mooy impulser coordonner d'accord parce que tey boo xoolee ci ci Sénégal foo dem am na ay initiative mm-hmm. Mm-hmm. am na ñuy jéem mm-hmm. di di di def ay initiative initiative yooyu ñun moom la ñuy ñoom ñoom la ñuy traquer di di xool ñi koy def di leen accompagner pour ñu koy def parce que euh, lépp ci ci base bi la ci quartier bi la ci école bi la mais soo gisee ñun ñu insister ci école bi dañuy xalaat ne si ci quartier ngay jógee. Mhm. ci kër ngay jógee pour mhm. dugg sa école. très bien donc li ngay jëlee ci eh, ci école bi. Mhm. boo génnee dans vous koy yóbbu sa kër da quartier très bien alors comment naka ngeen organisé au au sein de ce centre là. comment est-ce que vous êtes organisé comment ça se passe non seulement à Dakar mais aussi dans les autres régions du Sénégal. dans toutes les régions. on intervient ci Sénégal Je waxoon naa la léegi partenaire principal mooy éducation nationale. su ngeen fàttalikoo ay at ci ginnaaw. amoon na fi benn programme bu ñuy wax PFIE e. mhm. programme formation information pour l'environnement mhm. nga xam ne pays yi bokk SILS yëpp mhm. ñoo ko bokkoon programme boobu am fukki at bi mu jeexee dañu waxoon ne pays yi nga xam ne bokkoon nañ ci programme boobu yëpp léegi dañuy créer ay structures yi nga xam ne ñooy jéem a pérenniser initiative yi programme bi doon jël donc projet programme boobu environnement la mhm. ak ministère de l'Éducation. ce mo moo tay centre B d'accord, accord naka ngeen organisé wo mooy léegi ni organisé woo ñun euh, euh, comme le éducation nationale. moy mhm. suñu partenaire principal. parce que école lañuy intervenir. donc ñun bu ñu ñëwee ci dañuy jaar ci inspecteur d'académie. académie. ok mu inspecteur IEF. des éducations. yi mhm. nga xamné ñom ñoy ñom ñoy superviser contrôler école yi. école euh, comme li ma doon wax ni entrée yi. dañu am ay critères. Mhm. dañu wax ne par exemple ñun pour ñu école bi am bois d'école il faut que mu école bi ñu bu bi ñu clôturer bu am ndox ak l'engagement l'engagement ñun ni ñu koy déterminer mooy directeur école bi ñu bind mhm. ne ñun dafa bëggoon a bénéficier programme bois d'école xam nga kooku ñëwoon ne ko dama lay indil bois d'école parce que mhm. on a on a constaté ça du du réussir mais ñi nga xam ne ñoom dañ ko demande ñëw soo les accompagner en général ça marche parce que li ñuy def renforcer seen capacité directeur bi ak jàngalekat yi fa nekk. Mhm. def ay séances d'animation. animation am nañ euh, activité bu wax les mercredis verts. Mhm. Mhm. école bu nous bind nous dañu ñu entretenir leen ci ben thématique. ñun ñu préparer suñu expo def ay film yu ñu am ak pour une journée. très bien présenté ko. Mhm. école bi ñep dajé ñu laaj ñu ñu expliquer leen ñu échanger ak ñoom. Ah, alors tonton mhm. Lamine justement mi ngi ne engagement bobu la ñu soxla waaye je pense que comme ci télévision la ñu nekk ñun tamit mhm. ñi ngi appeler justement euh, ces ces ces écoles là. Euh, ñu dem séti leen. parce que je pense que euh, comme que bu ko waxé buñu engagé wo def na ne gëna gën def liggéey bi mais dañu soxlo que vraiment toutes les écoles. dugal ci sen loxo bu ko défé xalé yoy mëna maggé gimmi ak ak ak lolu éducation bobu ñaar ñu fi nekk.

ñëpp la solo mbiru alam bi. parce que kat def fi loo xam ne nii ëllëg dina indi jàngoro. wala loo xam ne musiba lay indi ji. wala béy ci sax bu dul sax yi ñuy saat nekk ñoom seen. nga def fa comme ni mu ni eh, reportage bi wonee rek machine yeeg yooyu ñu jël sànni naan mbalit la teg ko fa bu demee ba maxe mbaa mun na jur leneen loo xam ne dina ëpp sax feebar ci boppam te loolu suuf sa lay njëkk yàq mm-hmm. te suuf si dafa am solo mm-hmm. suuf si ci environnement bi la dëkk mm-hmm. moo ci sax donc les loo xam ne nii def ci environnement bi. Mhm. dana fay ci souci. très bien mhm. euh, en tout cas madame Awondo Diop euh, mhm. vraiment ñu comptons ci li nga xamante ne bi tey moom nga nu indil parce que nous euh, dañ koy faral di wax de toutes les façons Faut ñu nag tàggat ci bu baax <laughs> surtout <laughs> surtout bi mom nga faté parce que par yenn saa dañuy japp ni que ki lak wala ki sànni ku gor ki rek la concerné waye tamit par yenn saa nga gis ci jigéen ñi ñu def yenn acte yo xamante ne c'est extraordinairement terrible. parce que nga am sa mbalit déjà génnee ko si ki bi tek ko si mbedd bi. té wóor na la ni auto bi du jall déjà yow wóor na la ni yaa ngi lor ñi nga dëkkal. parce que xamuñu lan mo nekk ci biir mbalit bi. Mm. waaw wala nga eh, sa doom bëgg def ay besoin nga ni ko defal fii ñu dem comme da nga yàq comme da nga kii mm-hmm. alors que ay kër la wër. Mm-hmm. te yooyu yëpp en général jigéen ñee koy def mais malheureusement góor ñi rek la ñuy accuser mm-hmm. donc ku ci nekk da nga ci am part de responsabilité te ndey ju jubee borom jigéen bu jubee. dafa mel ni société bi yëpp a jub. donc éducation bi tamit ñëpp la concerné. ce serait bien que aussi CFE e xool naka lay duggee ci groupement de famille di ak ñoom. ci association féminine yi di ak ñoom ci club yi ci école yi tamit parce que. da nga ciy gis ay club yoo xamante ni presque li ci ëpp jigéen ñee ko jiite ñu waxante ñoom sensibilisation bi commencé depuis ah. ab ndolli lay wax ci loolu mu wax noonu waaw am na ci ñoo xam ne dañuy boyale ci biti. Mhm. muy këriñ di matt ba. Mhm. saxaar si di naaw. di gilli ji. <laughs> loolu aussi ñi am asthme. Mhm. yaa ngi leen di rey. dëgg la te xamoo ci dara dañ naan rek dëkkaale la dafa bëgg a boyal rek mu boyal. te ñuy saaf te Lamine loolu li ci gën a graaw mooy habitude bi ñu gis léegi jigéen ñi di boyale. mooy plastique la ñuy jël sachet plastique. taal ko def ci xam nga dafay jaaw a tàkk éponge. ah bon pour mu boy. non pour mu boyal te li muy wax nii. parce que ci ci composant yi nga xamné matière, yi ñu defaree plastique mhm. daf ci am yu ñuy wax les polluants organiques persistants Soko talé moy mooy pneu yi mhm. mhm. na fait de daf nañ ci ay spots yi brûlage pneu durant les grèves et autres spots ba légui ça c'est disponible lol di ci jolle mm. boko d'où mm. manam day dugg ci sa sa yaram bi dugg ci sa deret ji mm-hmm. loolu garaaw na de mm. la yahi waaw donc dafa dafa dafa graw thématique bugu len wax rek ne sank dama len waxone ñun suñu vocation réelle du dem sur le terrain pour exécuter mais c'est d'impulser c'est d'animer c'est encourager des initiatives et parmi ces acteurs là il y a les femmes elles sont elles sont très dynamiques c'est vrai que ñom léeg-léeg danañ danañ causer ay problème mm-hmm. mais nak solution yu bari également ci jigen ñi lay joggé mm-hmm. mm-hmm. donc solution yu bari ci jigen ñi lay joggé tay par exemple école xam nga école dans son milieu lañuy wax suñu intervenir ci école du yem rek ci école bi il y a le euh, comité de gestion de l'école il y a l'APE l'association des parents d'élèves parce que nous ñoy gérer tay bois d'école bi bu vacancé ñooñu ñoo koy gérer maire ak ah ah. parce que xalé yi dem nañu vacances donc les activités buñ fay développer acteurs yooyu yëpp mhm. dañ ci pour que comme li ma waxoon ñoom ñëpp bu ñu ñëw ci kër lañu les ci quartier lañu joggé ci mhm. dëkk lañu joggé pour mhm. que bu délo mëna mun information alors on va terminer peut-être benen élément bi moy toucher un peu aussi xawma ma lan ngeen prévoir aussi à l'endroit des entreprises parce que entreprises aussi souvent dañuy wax ki euh, intoxique euh, comment il s'appelle euh, euh, qui pour ces produits chimiques, etc pollution aérienne yeeg consort genre pollution a un acte aussi moom la ci euh, très rapidement ci ci côté boobu xam nga ñun fonctionnaires yi mhm. dañu am habitude di wax def leen def leen def mhm. Mhm. dañuy commencé ni dañu développé un programme avec un partenaire Lux Luxdev ñu ci accompagner euh, les, les éco-gestes la promotion des éco-gestes au niveau de l'administration d'abord mhm. mhm. mhm. Tay, sur ministère le le mix énergétique existe aujourd'hui une facture d'électricité euh, baissé de 50 ah, parce qu'on a mis des panneaux pour avoir de l'électricité de de l'électricité à partir du solaire plus l'électricité électrique d'accord euh, parce que on fait du marketing social. Mhm. en matière de marketing social si wax nit ki. Mhm. bul sànni li ci mbedd mi mais da nga koy naan dugal ko fait ci mhm. mi il faut que également les autorités suivent. au niveau des cabinets des ministères. xum boo génnee mouchoir nga gis poubelle boo ko mën a dugal mhm. suñ génnee ci mbedd mi également ñu gis fu nga xam ne boo yoree bana lekkee banaan boo boo xoolee gauche xool droite da nga seen à vingt quelque chose foo ko mën a dugal parce que yooyu itam préalable yooyu il faut mhm. ñu régler ko très très bien mhm. en tout nekk lu lu lu lu lu am solo rek tuuti oui rapidement ci nga xam dañ leen di gaare ba ñu maxe am na ay nit sax yuy fanaan ci biir oto yi di lor dëkkandoo yi. waaw xam nga léegi ñun problème bi ñu am mooy. suñu suñu suñu turu ministère environnement daf <laughs> ce qui fait que lu xew ci environnement rek ñu mais le ministère de l'environnement ne gère pas. Mhm. les déchets. Mhm, tout à fait. ne mhm. gère pas les déchets. aujourd'hui xam nga déchets yi fii gis ngeen ko na municipalité normalement ressortu municipalité dans le cadre de la décentralisation. d'accord ok donc. UCG gis ngeen ko fi mhm. benen ministère la mhm. nek té mom moy régler problème de Dakar donc vraiment c'est c'est c'est des choses nous tout ce qu'on peut faire c'est par rapport à ces, comportements-là. Très bien. C'est-à-dire aider, voilà, mhm. aider un peu la population à prendre conscience de, que tu environnement que, que de, de, de, nous respecter l'environnement. Et c'est juste pour le bien de nous-mêmes. Parce que nous, nous sommes que nous sommes les gens qui sont malades, nous sommes les gens qui sont malades, nous sommes nous daal doy ñu fay mm. mais dal en tout cas ñi ngi def tout pour que nous yi jël conscience de tout ça parce que vraiment changement yi ñong koy wax de ba légui mm. et que cette éducation environnementale là mm. je pense que dana war a aider vraiment la population pour ñu am plus tard de très bons comportements en tout cas euh, mbokk yi ñi ngi remercier bu baax a baax madame euh, ci li indil éducation environnementale mu remercie am solo di ci remercier encore une fois monsieur Babassène chargé euh, de communication au centre d'éducation et de formation environnementale départementale euh, mbokk yi ñu xuus nag ci émission euh, Tam Tam di len fàttali ne yéen a ngi ñu jot ci canal 5 bu TNT ñu ñëw ak yéen nak ci ijab du jour ak suñu xarit mage ñu dem xol ben démonstration mbokk yi dellu suwaat mën yaatal waxtaan bi ci plateau bi. فجرا جئت بعد العسر يسرا رب عليك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي

nekkee seetlu nga fi dafa croisé. seetlu naa ko waaw li ah, daf lay permettre. Mhm. ak kagun bi nga à l'aise mhm. xam nga bu tout le temps la fois passée dama def mhm. dama def très très bien alors monsieur Sen, euh, chaque vendredi euh, RTS2 dafay wone euh, vraiment ñi nga xamante dañuy muuru ay façon fashion comme niñ koy waxee yu ànd jamono yu nga vidéo franchement moi <laughs> <laughs> parce que euh, lii hein. mhm. parce que tay euh, xam nga ñun cholin bi. waaw mais lan moko dëgg la lan moko mhm. ba pare euh, rafet na. Mhm. yiw loolu la la parce que du sax rek. mais même les chrétiens. gis nga seen waaw parce que jigéen xam nga. dafa dafa dafa doy waar daal yàlla mi ko lim ñu ci wax rek. Mhm. mooy li nga xam ne mooy li am parce que moom mi leen bind. dëgg la xam na moo moo leen gën a. xam nañu xam nañu moo leen gën a xam nañu. waaw donc lu lu mu santaane rek. loolu mooy li ñu war a def la waaw xam naa ne dinañ ci dinañ ci mës a ñëw incha allah li nga mm-hmm. xamante ne bi mooy muuru bi parce que nag <laughs> léeg-léeg boo demee ba yenn at yi moom pas le choix foog nga ñëw ci muuru bi alors un mot par rapport ak euh, suñu mage magique bi nga xam ne saa su ne mi ngi ñuy indil vraiment ay euh, ay euh, ijab yu rafet en tout cas merci beaucoup Maj mhm. toujours daf ñuy gën a inspiré ñun tamit ñuy gëna défarat defaraat yi mhm. même bu fekkee kagul bi duggagul mais mi ngi ñëw ñi ngi yoon bi inshallah rabbi c'est très joli mhm. et puis comme ni ko waxee suñu ki mannequin bi Amina daf ñuy gën a jox envie parce que il est très joli macha allah yàlla ko yàlla sàmm amiin amiin tonton Lamine waaw magique na de euh, man daal xam nañ ne damay bañ a tàqis ah, ah. ci appréciation waaw mais li ma jaaxal tey <laughs> Maj dafa dikki foo xam ne fu doy waar gannaaw euh, mannequin boobu. waaw Euh, bugguma ci teg dara parce que dañ naan euh, boo demee hmm. daf ko daf ko nobak dafa ci xam nga fii gars yi <laughs> non non li nit ñi di dégg ak fa ñuy déggee ah, ah. ak nañ koy interpréter <laughs> freiné nga leen <laughs> euh, léegi man dama ñëw sax ci bii ma jàkkaar lool dafa mel nii li baatu olof bi doon wax mbéjum kanam borom a koy fajal boppam gis nga fleur bu noir bi mu teg ci lex bi noonu non waaw ah, waaw kii mooy mbéjum kanam

table du boko ko mhm. ñaar yi nga xamni ñoo fété ah. du xam nga sa bopp fu mu jëm. Ah. Ah. <laughs> noir man ma beju comme moi moi je casse les. exactement voilà. voilà avec avec avec le. le, euh, le de l'environnement. ah <laughs> le verre en plus. en plus c'est magnifique. c'est magnifique man de j'ai le bleu de l'islam. très sur la table. très bien <laughs> en tout cas kontaan nañu marge, mm. est-ce que ça su vraiment euh, la ñuy indi dafay am solo te nak vraiment dañuy mhm. am envie tout le temps d'y voir sa mannequin bi. oui oui kon nag rendez-vous la semaine prochaine. inshallah allah la semaine prochaine incha je remercie tout le monde. Mhm. Euh, ma maman ma famille. Ah, Wa Inshallah. Uh-huh. Euh, De remercier yi ma bokk plateau bi. tim vendredi bi De remercier ñi defar make-up ma mooy sono Mamita. Uh-huh. De remercier Juma Fall Aydara. Idja Massour mom moy uh-huh. borom yére yi rafet yi voile rafet yi machallah bu ko jot da ngay wo 77 567. 83 21. très bien ñi ngi fii nañ alors je sais pas si mos nga ma gis ma mais je pense que dina ñëw ben vendredi. Oh. ak euh, mouray ak ijab bu nga <coughs> on en reparlera. Mm. Inch'Allah. Ah, pour faire plaisir aux téléspectateurs. Inch'Allah. Ah, hein. Vivement. Ah, c'était bien, ouais. <laughs> Non, non, <laughs> en tout cas, il est remercié, Mal. Merci beaucoup. On te donne rendez-vous la semaine prochaine. Ok, à la semaine prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah. mot qui ñu dem c'est nag benn clip nous nag recevoir suñu invité ak suñu tonton Lamine Ndiaye. varembe munyibaba waaw euh, mbokk yeeg xarit yi nag euh, muy tey suñu invité du jour sànq maa koy wax euh, Fatoumata Diarra tonton Lamine nga indi ñu ko nag sànq maa ngi koy wax aussi mu nekk vraiment génération bi nga xamante ne bii ñoo féete ndaw fii ci Sorano. waaw tey dama ànd ak moom dikk waaye mm-hmm. yaa xam bu nee na Galadi. Galadi. Galadji. c'est quoi. may la dara ci ci Galadi. Galadji. mu déri may la dara ci seet. non. Gande mais non. ah Sénégal non Hein? c'est dans le Bakel. Jeff Baba. ah da nga de Goudiri. eh <laughs> ah, Gande Gande je connais pas. nga euh, Bakel am ay ndaw yu mm-hmm. ñu lool ci euh, mm-hmm. Sénégal du wolof bi mm-hmm. indi koo xam ne ni woyu bambara la doon woy muy euh, aram kamara mm-hmm. indi nañ fii séeréer waaw muy maringoni euh, waaw ñu ngi waaj a wër senegal waaw kay jërëjëf <laughs> noonu laa ko soppee noonu laa ko bëggee yow nag ko xarañ nga mm-hmm. moo tax mooy dem bëgg ànd ak yow <laughs> alors euh, ki ñuy recevoir tey mi ngi tudd Fatoumata Diarra mm-hmm. xamna bo boo déggee jarab bi da nga nan rek ci bambara yi la féete. waaw moom ban xeet la mais daanaka soninke bi yépp ci malenke bi la. d'accord accord soninke bi. Mhm. mo fekk ji waaw parce que nag way bi sank daf ma xawa jox euh, musique guinéenne. voilà mhm. mais lépp ci inspiration la. Mhm. te foofu sax ni mu la ko joxee. moom dina wax euh mu def ba def clip bi. ni mu def ba nga xamni ni nit fekk nako fa. jël ko feyal ko mu produire. Mhm. ba paré mu continuer yi mu produire diko ko jaay ba bitim rew mu am leneen lu muy produire mhm. ñeneen artistes très très bien laata nak ñuy ñëw ci loolu. seetal loolu seetal loolu xam nga le Sénégal mom la kii Sénégal la juddoo. Mhm. mu jur ko ba mun ci am loolu ñëw delu si kooku la muy for. waxu lako ko ci Mali la jógee. waaw waaye ci biir loolu laata nak euh, ñu def dara parce que nak wax deug yalla ku nek fier nga ci waso ba nga ba nga bok nga bokk. ñu bàyyi nga nuyo len ci vraiment seen seen làkk ñu nuyu nak sa mbokk sonika kay nga xamné ne euh, ñoo RTS 2 ak wa Bakel parce que nak wax deug yalla c'est des zones yu nga xamantene bi malheureusement on ne les visite pas très souvent le Sénégal le bokk et il y a vraiment des choses à voir là-bas Salam salaamaaleykum mario musoninko xaw jam xaw ram moxo na taxada xa kra taxu beta nawti gajaga ferlo bundu xayre oɗo ban sukkuñi di sénégal mali mauritanie gambi oɗo ban di toxondi jammu lenki farmata ni taxu rtc lenki Mm-hmm. yo guerin invité rts 2 tinnali taxu mm-hmm. ndaxanam masala mm-hmm. ona saran kaku ke koyi yo ndaxa kuñ ndaxa xanta lan nañu wax lan nga wax foofu yëpp ma ne maa ngi nuy sama mbokk saraxule yi Gadiaga Xayre Bundu Ferlo Sénégal Mali Mauritanie Gambie maa ngi leen di nuy képp foo xamante ne rek am na ay saraxule rek

waaw voilà baaba mhm. ñu bëri dellu sil mhm. ngir yàlla tukki am na solo waaye dellu sa biir njaboot am na solo ndax njaboot gi namm nañ la mhm. te duñu bëgg nga dellu si ah bravo donc euh, dafa war a yeete la euh, man bi may waxtaan ak moom dama jël loolu sama yaram ngi doon daw parce que bàyyi sa njaboot kat xamul ñaata at ba kenn ci njaboot gi nekkoon xale bu mu fiy jógee xale la nekkoon ba màgg ba sëy

te kii see kii doomam bi mu bàyyi muy namp ci yaayam. Mhm. kooku sama rakk rakk rakkaat la. kon xam nga ne kooku yàgg na ci àll ba. Mhm. dama doon tëdd di ko xalaat. sama xel bi day nekk ci moom. aw ma woon numéro di ko woo. Mhm. bon yàlla def nag euh, léegi est-ce que amul ii kooku yàgg na de. moom ñëwul ba léegi. non ñëwul mais bi ma ko génnelee woy bi nag ba mu dégg ko mu ngi ci préparation pour dellu parce dama ko ne papa. dëgg la tukki dégg la mais ñun namm nañ la te déggi dee bi dafa gaaw mhm. boo tukkee am nga amoo mhm. dellusil sa mhm. njaboot ñu gis la ndax ñun dañ laa namm

dañu wala fi dañu wax ne tukki bu nekk am na sëricë mm-hmm. te liy bàyyi langloo nit ñi ci àll bi mooy loolu su amul nangam su amul lii du ma ñibbi amul lii du ma ñibbi mm-hmm. après ngay pousser échéance bi rek mm-hmm. ba ba lii arrivé te adduna adduna damay wax ne xaalis c'est pas la vie. daf ñuy pour nous dund mais c'est pas une fin en soi ah, ah, alors donc euh, yu vraiment comme nous wax aussi sens parce que c'est mm-hmm. une culture une oralité donc mm-hmm. ci ay ay ay ay ay ci a mm-hmm. population yi c'est parce que tey ku dégg euh, les bu wolof Sénégal majorité bi wolof la mais mm-hmm. tay bi buñ ko mënon tekki ba ba jot ci xam li wax. Mm-hmm. dana dana dana amna yu bare bare yu mu yu mu. mu touché moom rek. histoire euh, la ci vous na lu euh, clip. d'accord. Euh, yi ma la wax li ma la wax xam nga man boo gisee mais ma doon hésité tuuti dama la xam. Mhm. te bëgg ma woon nga nga <laughs> lâché. non ça va ça va <laughs> dama bëggoon comme xarit nga rek. mais nañ ko wéerale ci xarit bi mu waxee ko mhm. noonu. Mhm. mais def na donc euh, juróom-ñetti clip. ba pare boole ci mu nekk koo xam ne nii fi ñu doon lim sànq yëpp. ñëpp ko xam foofu ñun fii Ndakaaru xamuñ ci dara.

fépp ci àddina bi mën nañ ko seetaan sa papa encore une fois lancé ko benn benn message nga wayal ko su la neexee RTS may na la loolu yee baba baba yoo baba hmm, tuganta dambetu bakkiri remen ɗo laaji remme tuganti dambetu xa tuganke ngalen ciren jure Bakary Reme eh, baba Bakary Sara Demba Reme tungaranke bagambagala tolle me baba bal de mu ñi de la eh, way bi ci boppam mm-hmm. li tax ma dagg foofu man maa xam lu tax mm-hmm. dégg yow si sa dund. Mhm. et puis nag tonton Lamine ñu may wax xam nga nag équipe la ñuy liggéeyal. ñu naan ñu wax baaba mais beneen benn baabaa ngeen di toog. mais waaw. <laughs> xam nga baaba xam nga baaba turu turu doy waar. waaw waaw parce que yow nay ma ne baaba. ñoom papa. baaba lañ koy wax. baaba lañ koy wax les mhm. yi baaba la ñuy wax. pël yi baaba la ñuy wax pël yi ñoom baaba la ñuy wax et même séeréer yi ils disent baaba. Mhm. baaba bi benn benn la. Euh, ñoom fi ñu koy tibbi sax dafa dafa am saxu euh, am dayoo ci ñoom parce que bu nee la baaba ci seen làkk ñoom muy làkk tukulëër ak yeneen xeet yi nga xam ne ñu ngi utiliser baaba mm-hmm. day nekk loo xam ne fi ñu koy tibbee sax yow doo ko mën a imaginer alors yu mel noonu nag mhm. lu ñu war a waxtaanee la parce que dafa bokk ci suñu patrimoine waruñu ko bàyyi non. non mhm. et puis nag euh, tonton ñu ñëw nag ci li nga xamante ne mooy fan la toll ci carrière am parce que tamit euh, nombre de clips yi nga xam ne génnee mhm. je veux dire way bi am na sens daw na yaram tamit ñu gis ci moom aussi ben vocalement vraiment mûr na daal comme artiste voilà elle a une voix Sorano du du jël du jël ndaan euh, ko du ndaanaan mm-hmm. Mm-hmm. parce que ñom ñu fa nek laaj na ñu mën defal leen promotion bu mag bo xamni ni nii mm-hmm. fa jiitu won te téye won drage bi au moins xalé yi soga a ñëw léegi mel ni ñoom te gunge leen ci li day indi promotion très très bien fan nga ah. toll ci ci carrière bi bon ma sama album bi mu ngi soga a génn te ki ma produire euh la dekk mais instant yi France la tok d'accord mais bu ma sañoon nag. Mhm. ma am ku may produit Sénégal. parce que doomu Sénégal laa. la fii laay tiitaroo. Mhm. boo gisee ma jóge fii dem Mali. Mhm. mu jënd kaset bi. moom lu mu ci am man du ma ci am. dëgg bu sañoo bu fekkoonte woon Sénégal la ko defee tey. du ma métti. mais dama dem rek ñàkk pexe. bu ñu amee ku ñuy jàppale daal. bëgg nañ ko ndax fi ñu nekk. Euh, làkk yëpp maa ngi fa. man damay woy sama lakk. mais dinaa dem ci programme yoo xamante ne ma woy woy Marie Ngoné. woy woy am kanam si daani koli walaxti jaxlen doole sida minte afrika wo in doole sida minte afrika wo in yahe

dañu wax nu mu démé mm-hmm. ba paré mm-hmm. légui jox ko nit ñi ba nga boo tasante ëllëg. ku mu mm-hmm. munti doon. dana la ko tekki. très très bien alors euh, on dit que euh, tonton Lamine euh, temps bi nak terminé na pour moom. ñu bàyyi la nga posé nag euh, une dernière question. mu ñëw vraiment ci projet yi nga xamante ne bi vraiment mi ci la jëm. tout à fait. bon ma ngi wut ma ngi bëgg def yeneen clip. mais amoo doole quoi. parce que lo gisi aduna kenn mënu ko def. dëgg la. jàppale rek ku may mun a jàppale rek. ku mhm. ñu mën a jàppale ñun. Mhm. parce que ñi nekk Sorano ñu nekk ay ndaw dañoo bari. dëgg la waaw ci liggéey yooyu laa nekk. Mhm. mais doole. daal moo ma tardel tuuti. moo la tardel tuuti euh, wax nga ko fa nga ko war a euh, parce que yaa ngi fii ci télévision. te du ñàkk benn producteur wala kenn une bonne volonté. Mm-hmm. dañu seetaan euh, mm-hmm. xëy na tamit nekk sax saraxulé wala nek lenen mm-hmm. bëgg musique bëgg li ngay def xeyna dinañ la mëna contacter. parce que de toute façon ya Tonton Lamine ici. et ya RTS2 di bamtu wat nek chaîne culturelle ak sportive la. en tout cas Tonton Lamine xamna né ci suñu bir ay programme dinañu xol nak lañuy def pour ñëw ci li nga xamantene bi moy ligéyam and ci ak yenen animateur yo xamantene ne dinañ ko yaatal. pour que tamit tamit suñu mbokk saraxule yi gis seen bopp ci RTS 2 en tout cas ñu ngi lay remercier c'est toujours un plaisir <laughs> tonton Lamine di la recevoir waye tamit euh, di euh, sante di gërëm bu baax a baax Fatoumata diara ah, di ñaan yàlla baat bi wér waye et surtout Baba, man sax ma ngi lay ñaan baba ñëwaatal come back parce que njaboot kenn <laughs> amul lu gën njaboot voilà mm. alors mbokk yi ñu jeexal émission bi ak vue sur la toile Chers amis, la mort est une réalité. Prenez garde. Ces gens qui se font tuer sont des parents, des frères et des sœurs. Les altercations ne peuvent manquer. Mais peu importe l'intensité des disputes, ne cédez pas. Évitez d'agir sur le coup de la colère, car là est la force du diable. Et n'utilisez en aucun cas une arme pour intimider, car les regrets qui peuvent s'en suivre sont évitables. Pensez-y, la vie n'est pas un jeu. Chers amis, la mort est une réalité. Prenez garde. Ces gens qui se font tuer sont des parents, des frères et des sœurs. Les altercations ne peuvent manquer. Mais peu importe l'intensité des disputes, ne cédez pas. Évitez d'agir sur le coup de la colère, car là est la force du diable. Et n'utilisez en aucun cas une arme pour intimider, car les regrets qui peuvent s'en suivre sont évitables. Pensez-y, la vie n'est pas un... loolu nag mbokk yi ma doon sunu vue sur la toile doy na monsieur Sène lan nga gis ci vue sur la toile oui doy na waar xale yi <clears throat> lii ñu wax ne bo boo meree bu la fekkoon nga taxaw da ngay toog bu la fekkoon nga toog nga tëdd. Mhm. pour moytandiku. Mhm. jëf ju mel nii moo tax. Mhm. parce que saa yoor boo bo bo réagiré ci. sous le coup de la colère rek après rëccu moo ciy teg. dëgg la kon daal nañuy jéem euh, di retenir daal. Euh, calme parce que amna yo xamantene ne bi regret bi doy war en tout cas ñi ngi lay gëreum di la santé, mbokk di fatali nak suñu invité monsieur Baba Sen chargé de com au centre d'éducation et de formation environnementale. ministère de de de l'environnement ñi ngi lay gëreum di la santé, bu baax a baax. maa ngi leen di maa ngi leen di gërëm. Mhm. Euh, man li ma bëggona jéxalé rek. fi très rapidement moy mhm. tay comme li ñu doon wax ci suñu programme bi. Mhm nous avons le le ministère l'Éducation nationale En 2008. nous avons refonte du système éducatif. Nous mhm. avons ci l'éducation au développement durable. Nous nous avons un processus. Mhm. parce que le contexte a évolué. Le processus est également pour nous accompagner pour que les formateurs des euh, des formateurs. Mhm. Euh, centre d'éducation environnementale jël conseil pour refondre nous ci refonte système éducatif Nous toute thématique environnementale yu bees yep très bien dugal ko ci système éducatif nga xamné xalé yi dañ koy jàng. ci niveau yep incha allah yal na ko xale yi jàng mokkal ko ndax nag environnement bi euh, maa ngi koy wax sank ci lañu dëkk ñi ngi gërëm di sant bu baax baax mbokk yi Fatoumata Diarra euh, tay la nga ñu wonal a woyal am solo en tout cas yalla na baat bi wër ba nag noppi nag vraiment carrière bi machallah dem ci kanam merci beaucoup Fatoumata merci beaucoup mhm. ñi ngi lay gërëm di la sante tonton Lamine euh, toujours un plaisir di le recevoir merci beaucoup tonton waaw ah. jërëjëf maa ngi lay gërëm di la sant yow mm-hmm. tamit euh, boole ci suñu invité yi nga xam ñoom la am tey Fatoumata Diarra mm-hmm. euh, sëñ Baba mm-hmm. euh, donc ñoom ñaar ñëpp liñ doon doon wooyee. Mhm. mët nañ ko. te liñ fi yónnee. Mhm. Euh, yal na ko yàlla def. Euh, muy euh, dugg ci xelu nit ñi. te moo ñu ci bu baax. amiin éducation mhm. environnementale bi am na solo. waaye tamit halte à la violence ñu ki boole ko ci éducation bi tamit. dina am solo parce nag je pense que de plus en plus ñu ngi jëm ci mbir yu nga xamante ne bi xamee wuñ ko woon waa Sénégal. merci beaucoup ñi ngi remercier ñi fi toog mais permettez-moi ma euh, wax tuuti rek ci vue sur la toile parce que ñun dañuy def coaching mhm. au sein du cabinet te bu ñuy def affaire coaching dafa am volet bu wax maîtrise de soi mhm. naka ngay jàngee di di gérer ses émotions pas refouler tes émotions mais gérer tes émotions ba nga xamante ni mhm. bu situation présenté woo di nga xam ban comportement moom ngay am ba nga xamante ni def xam koy regretter parce que ce sont des moments yoo xamante ni du yàgg c'est éphémère mais tu ne sais pas les gérer ça peut te coûter toute une éternité donc foofu laa doon jeexalee di remercier encore une fois toute l'équipe du cabinet Active Consul mhm. di invite di remercier aussi sunu partenaires yi ñëw tey euh, CFE mhm. di remercier ñu bokkal plateau bi yëpp di remercier toute la population et tous nos clients qui nous font confiance merci merci beaucoup mbokk yi yéen tamit maa ngi leen di gërëm di gërëm saa su équipe technique yi nga xamante ne bi ñooy ànd ak ñun di liggéey di remercier Mariama Magasuba saa su ne mbokk yi gis ngeen ne mooy jaar ci sañse bi di fàttali numéro téléphone am 77 600 34 44 11 Builders villa numéro H56 waaye di remercier euh, sally Anne Labros euh, mangnek fele nekk fële euh, brioche dorébi. bonne suite des programmes sur la RTS2 au revoir